malin di yóbbu fi leen di dolli wérgu yaram Chinese bio by MK MK ak A ñoo dem Chine liggéey ak waa Chine liggéey ci médecine traditionnelle chinoise yëkkati lépp loo xam ne da di qualité ci li nga xam ne moom la ñu am li gën a baax jox leen ko ñu indi ko Sénégal mu di traitement boo xam ne dañ koy jaaree ci ay thé bio pour mën a am ventre plat médecine traditionnelle chinoise du caaxaan nga bëgg perte de poids Chinese bio prise de forme maanaam nga gën a fees del Chinese bio te lépp ay tee la fertilité féminine jigéen joo xam ne da nga amoon ay jafe-jafe ñu raxas sa biir ndax nga mën a jël grossesse fibrome prostate hépatite B hémorroïde et ulcère Chinese bio lépp ay tee la lépp bio la bay MK am na tee pour arrêter la cigarette résultat bi da nga koy gis ci une semaine à boire matin midi soir Chinese bio bay MK rond-point Jamalaay booy dem Dior première doo daan gauche wala nga woo

di sant son excellence monsieur premier ministre Sidiki Kaba di sant madame Kaba baax a bu fekkee ne tumrankewu ci Tamba yaakaar naa ne sans risque de me tromper mën na maa wax ne ñii taxaw fii ñoo tax tumuranke parce que kii wax na ko léegi dañoo bokk Cheikhul Khadim wëlbatiku bokk ci kër coot la ñu bokk te mënuñu ko séddoo muy Cheikhul Khadim rawatina Daaru Xudus bi mu njëkkee ñëw seet ma jukkik nooru daaree la def addiya indil ma jox ma si bis bu nekk mu defi jéego yónni ay nitam ñu ñëw indil ma lu ma xew monsieur le premier ministre depuis dama koy wax ne li may indil xam nga ne du pour man parce que ay booli lekk du pour man ay kees yu fruits chaque jour du pour man mais boobu ma ngay xalaat ñeneen ñi ma nekkal démb rek moo ci mujj benn détenu nee na ma mais président boo demee lii moom lii nga ñu tàmmal nu ñuy def man ma ne ko ñaanal leen kii indi xéewal yi ak fruits c'est son excellence Sidiki Kaba kon su ma génnee euh,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 dañoo bëgg na ñëpp ndax nag wax bu jotee bu koy wax. ndax bu ko jël loo war a gën. yow ci baayam di wax ci baayam da leen ko war a déglu ku ci déglu yàlla nga fekk déglu.

naka mu woo ne ko maa ngi dem suñu xomb si seen ba pare ñëw ne ko bon ma ne maa ngi ci yoon aussi dem ci kër si yokk ma ko avec la euh, ministre mu daje rek mu doon benn. parce que fekkee moom nii la nii la daje waroon demee. mu wax na ay yokk la ak ay peinture ak yooyu yëpp vraiment moom suñu kilifa la yàlla def na ñu dénk ko suñu bopp. non non bayal bayal bayal mu vraiment gis nga ko. bàyyi yëpp yëpp yëpp mag ñëpp. nangul ko ba loolu yëpp. depuis maam yi ba léegi lii am. je pense que mën nga ci yi nga féetee ci fi nga xamante ne jàpp naa ne toolu xare la woon pour yow nga xam ne en tout cas waa Tamba ñoom booloo nañu nekk benn ci li nga xamante ne mooy dëkk xëy na peut-être euh, élection yi ce n'est qu'un aspect mais en tout cas je pense que moom boo xoolee ni mu doxalee ak yow bii foofu nga nekkoon manqué woo daal yaakaar naa ne loolu ñun suñu fierté parce que li doon li ñu doon gàcceel mooy nga ñëw ba Tambacounda euh, ñu téye la fii ba pare ngay dem nga ne gisuma kenn kenn fekkuma foofu noonu dara fekkuma fa am naa yaakaar ne lépp euh, fekk na la fa li nga xamante ne loolu nga soxla woon la nécessaire parce que nag moom yàlla def na aussi vraiment bu ko defee du gulet parce que quelqu'un qui a été à l'ONDH géré la FIDH donc ci affaire droit de l'homme su dul woon yow kese sax xëy na peut-être loolu dana ko def par rapport ak conviction yi nga xamante ne incarné na moom ici liggéey mais aussi euh, le côté social bi nga xamante ne am nañ ko biir Tambacounda donc ñun nag ñun dañ ciy tàngaat rek di si jàng mais naturellement Bougane moom suñu frère yàlla moo ñu boole ñu bokk suñu Daaru Xudus. nekk ay mbokku taalibe bokk sëñ Mourou Moustapha bokk Serigne Touba. donc li ma ko jàppee d' abord loolu la. d' abord aussi xam nañ ko. Thione euh, Ballago Seck sama maam lañ ko tuddee suma maam Thione lañ ko tuddee. donc euh, loolu aussi di kóllëre boo xamante ne diggante ñaari famille lu yàgg. loo xamante ne euh, moom tamit loolu boole nañ euh, ñetteel bi moom mooy ñun ñëpp ñu bokk benn génération également di liggéey avec conviction ak loyauté ak engagement parce que jamono bii aussi woor nekk na loo xamante ne lu yomb la mooy tey nga jël dara téye ko mu euh, au nga téye ko parce que neex na nga téye ko naqari na nga téye ko bu naqari rek nga bàyyi fa ña nga xamante ne yéen àndoon téye ko nga dem téye li nga yaakaar ne moom moo neex man nag man moom personnellement man su ma doon dee sax su ma nitu démb man bu ma doon dee sax bu ma am ñetti dërëm ñuy lekk mbiskit ñun nee naa boo doon dese benn nit benn nit boo doon dese ci àdduna man lay doon. parce que man du ma wor. ça c'est vrai loolu moo tax moom it ci loolu lañ fekk. ba ko nuyu ma ne ko dafa naa ñun buñ doon des ñaar kese fii ci Tambacounda ñaar ñoo xamante ne Macky la ñu dese man ak yow lay doon. parce que affaire de conviction la affaire de loyauté la mm. affaire d' engagement la politique bi c' est pas seulement la victoire mais acte bi ngay posé la bon je pense nag loolu rek la démontrer si yow parce que li nga def aussi ñun ñoo ko waroon def mooy porter le combat mais tu as eu le courage de le faire tu as eu aussi de le faire tu as pris le temps et tu as pris donc naturellement aussi lu ci doon daanu sa kaw lay daan mais njëkkuloo ci te doo si mujj mm-hmm. Ablaye Wade mi nga xamante ne dégg na lu nekk toog na façon kaso bu ne nekk na si néegu kaso bu ne euh, Nelson Mandela tëral na façon kaso bu ne Serigne Touba mi ñu yaakaar tëral nañ ko ci façon kaso bu ne ah, li mu la waxoon man keroog moo ñëwee fekk la fa la première fois ci prison ma je pense que nuru daara yi laa la tey hmm. la jox en sept jub voilà nuru daara yi li ñu ci boole xam nga ko sëriñ bi ci boppam euh, boo weetee forme de réflexion waaw une forme aussi nga gën a yokk nga gën a defar sa bopp moom mi nga xamante ne avocat la xam les géol xam li fa nekk euh, vraiment daal yaakaar naa ne épreuve la woon yàlla na doon loo xamante ne da lay avancer da lay yokk mais daal vraiment euh, c'était une expérience boo xam ne elle était unique euh, nañ ci lu nekk tey ça nous a fait quelque chose quand on a vu le PM mu ñëw solul robu avocat bi mais mu ñëw avocat yi warmaal ko teg ko ci table avocat yi dafa doon tekki lu bëri loolu nag moom vraiment on a vu comment aussi tu am solo la mais on est venu également pem parce que ci biir waxtaan yi rek ñu ngi intercoalition bi taxawagul woon Tambacounda mais jàpp nañ ne soreetu